ETDR Evans présente mbokki Sénégal déglu leen bés bi bés bu mag la ci wàllu lamb le dimanche 9 juin 2024 ci arène nationale deuxième édition drapeau des Faramaren monsieur le ministre Omaro Gueye porte-parole du président Wali Balago Seck bu Yoof ndaanaan bi champion bi moo fa war a jàkkaarloo ak doomu Rëbës double moteur cey boobu combat mbokk soq bu ndaw dina fa jàkkaarloo ak Bouba Teg Choc ak Eumeu Junior Boy Pire jàkkaarloo fa ak Mama Lamine numéro 2 entrée supporter bi ñu ne 3000 events te sant yàlla julli ci yonent bi ci lance fàllu toogal sant suñu ñaari waajur ñu ngi sant mbooloom ku fi teew ñu ngi sant presse bi yépp di wax rek nii ñoom dañu baax rek di ma cëral mais li fi liiru jaan def aaroon def ko fi ma silla def ko fi ñu jël kàddu yëpp def ko fi bëgguma fi wax leneen mais ñeenti moo rek laa leen di wax muy police centrale bu Guédiawaye ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ndax la loi c'est la ku ne xam na ni la de Guiers police Guédiawaye bu doon seen sago duñ ko jëli tribunaalu Guédiawaye juge bi gën a mag doon ko atte bëgg koo atte ndax Lac de nit ku mag la mais amul kenn koo xam ni mën nga wàcc yoon Lac de Guiers ñaari caabi ñoo ko téye première caabi bi mooy ñi mu yoreel deuxième caabi mooy juge bi kon ñun li ñuy ñaan mooy waa Géejawaay du ma nekk di détail ku ne xam ne ni Géejawaay kilifa yi ñu ngi dajaloo pour jàppale Lac de mais lii fi am ci somm am nit ku jël vingt cinq millions teg ko ci loxol Bécaye avant ñuy gërëm Bécaye dañuy këram borom vingt cinq millions yi c'est parce que ñu di ko këram bu amuloon ngor gu toll ni jël ko jox ko Bécaye Bécaye am ngor gu toll ni woo papay la dëgër waññi xaay bi teg ci loxom kon tey wax ñi dana sore damay wax rek nii li nga xam ni moom la la dëgër yoreel ñi mu yoreel li juge bi di def ba xam ñi la dëgër yoreel juge bi dana def loolu liñ koy ñaan moom miy jàpp te di bàyyi mu dimbali ñu ci Lac de xool nan lay def ba loolu fi ne ma woo ñu Lac yoreel xool nu muy waxtaan ñoom ba Lac de Guiers génn liggéey fay ndax mbër yu mag yi nekk au niveau du Guédiawaye nekk parcelle nekk tëngéej gi ama neex di wax nekk yaraax mbër yi am cent millions kenn ku nekk boo jëloon cinq millions lebal ko Lac de Guiers bu génnee dana la fay xam naa loolu ba ci xelu bëri kon li ma bëgg mooy na lépp rafet ñu ngi sant ma silla bu baax a baax te di wax nag Bira man li ma jàpp mooy Bira Sène complexe la Bira maa ngi dégg sànq ku naan ñu ngi gërëm Bira Sène ci salle bi Bira Sène moomul salle bi salle bi ñun sénégalais yi ñoo ko moom ñun waa làmb ñoo ko moom tey jii bu ko leeroon nii Diomaye day ñëw wala président Sonko wala ministre des sports 11h la fi Bira Sène di toog mais li mu doon nokk ko def te ñu won ko ni que nag meruñu la dëgër ni ñu def ba yàlla dogal ñu téye ko dañuy def ay pexe ñaan autorité yi waa Géejawaay jóg yeneen mbër yi jóg li fi manqué ñu defal ko la dëgër fay seeni borom jàmm ne ñooy kon tëggul lu làmb li ñuy def daal xam naa ne Aziz Ndiaye Baye Ndiaye Bare Gueye Ndiak promoteurs yi nekk ci biir Guédiawaye dinañ jël li ñu am ñoom Modou Lo jël li ñu am Ama Baldé ñoom jël li ñu am Boy Niang ñoom jël ñun ñii li ñuy ñu am ñu dajale li ñu am dolli ko ci li fi nekkoon ñu fay bor bi Lac de Guiers génn te mbër yi de faire attention nekkuñu ci détails yi ah à tout moment jàpp ñu mbër dafa def lii dañ ko war a fayal loolu buum fi amati mbëri yi ñu am ngor gu toll ni li ñu am nañ ci yem li ñu moomul nañ ko bàyyi nañu waxante dëgg yàlla tax la dëggeer la gën a xam ni bu dee cëpp te àndandoo bu bon moo yées ci àdduna la dëggeer àndandoo bu mube la yor ndax problème yi mu dugg yëpp benn sagaru nit moo ko yóbbee mais bu la dëggeer génnee ñun dinañu ko teg ci axe ndax géejooy kenn mosu leen a yëpp jërëjëf jërëjëf man kontaanu ma non non ndax tey li ñu daal man tëngee laa dëkk man dëkkuma géejawaay de tëngee laa jógee dama demoon entraînement damay doog a yeewu farma moo ma woo wax ma ko démb ma ne damay ñëw assister li tax may assister nag lenn rek laa muy jullit laa la dëggee jullit la dëkkuma géejawaay ay adversaire laa fa am tëngee la ma dëkk tey natt boobu ko dalee ñun lu ñu war mooy quartier yi bari na fii gisuma fi koo xamante ne parcelle xanaa kenn laa fi gis muy Serigne Ndiaye amul waa Pikine amul waa Ngor amul waa Yoff amul waa Yaraax Pape Sarr waa non boo dégg Pape Sarr mooy Guédiawaye dëgg la mooy Pikine dëgg la mais maanaam mbëri laa tax muy wax waroon na may ñëw assister ah fii ñëpp a nekk ci contrat fii ñëpp nekk ci contrat ah. ñëpp a nekk ci contrat di bëri di entraîner di dallu di récupérer am déet la de guerre deful yëfi njublang natt bu jóge suñu borom dal ko rek la te mën naa génn léegi man mu dal ma baa mu dal keneen te li am importance mooy yow yonente bi salaa salaam nee na li nga yéene sa bopp yéene ko keneen ne nga mën a doon am jaamu am jullit buñ ko seetaan buñ ko seetaanee suñu bopp lañ seetaan ana géejawaay li ñuy wax géejawaay benn bopp nañ jóg autorité yi nañ jóg jàppale booy bi mu waaye tàcc leen loolu waaye am na solo fii kenn mënul suñu borom rek moo man fii ku ku yàlla teg loxo moo fi nekk ak ku yàlla dimmali yërmande nag laay wax yéen géejawaay rek rek rek rek rek waroon naa mën a soutenir Lac de Guiers mu génne mais dëgg laa wax man du ma fen dëgg la man kenn joxuma dépense man maa jox sama boppam dépense mais dama ne la géejawaay rek laa la wax waxuma waxuma Tëngéej waxuma Mbaa waxuma Pikine waxuma géeja waxuma parcelle damay la géejawaay li fa nekk waroon na yaa mën a jàppale seen doom ndax la la dagees ah xamalu ma ko dara de fa dëgg neex yàlla ndax li ñuy gisante bari moo juumul ñaari yoon laa ko mas a gis si àddina jaxran nii kon donc li am solo mooy weere ngeen torop yéen waa Géejawaay waaw non da ngeen weere man waruma woon a ñëw fii toog naan damay am lu may communiquer warum waruma man tëngéej laa dëkk dafa sori damay taalaat sama oto dem ñibbi mais Géejawaay dama na la ñoom rek ñoom rek kese ba duggoon génne duggaat génne barki yonenti yàlla mu mat waa ji génne jërëjëf tàccu leen ko jërëjëf jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf sëñ Touba jaram maam Cheikh Ibra Fall maa ngi leen di sant yéen ñëpp ñu nekk salle bi presse bi ñoo ngi leen di gërëm di leen sant du sant suñu kilifa yi fi toog su ma tuddee Père Diaw rek wax naa ñëpp ah ak Massi la Diop ñi fi nekk ñëpp ñoo ngi leen di gërëm di leen sant gis nañ taxawaay su suñu xol seet na ci yéen boobu ba léegi toogu leen mbër yi fi nekk yëpp vraiment ñoo ngi leen di gërëm di leen sant waaw am na si ñoo xam ne du ma leen sant moom ndax mbir mi seen mbir la ku ci mel na ñoom Sa Thiès ñoom Alioune Seye ak xale yi nekk yëpp du ma ñi dëkk Guédiawaye du ma leen sant ñoom waaw euh, nu tudd euh, Bébé Saloum ñoo ngi lay gërëm bu baax ak yéen bëri yi fi ne yi fi nekkul te bëggoon a ñëw te ñëwuñu te wooma vraiment ñoo ngi sant ñëpp am na ñu bëri ñu bëggoon a ñëw te woonal ma tardement beeg loolu ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ku ñëw ku ñëwul yëpp euh, di gërëm tamit wax dëgg yàlla ki ñu jox saal bi waaw muy Bira Sène wax dëgg yàlla moo ñu jox saal bi ñoo ngi koy gërëm di ko sant tàccu leen président Bira Sène tàccu leen vraiment ñoo ngi koy gërëm ci loolu moo ñu jox saal bi voilà ñoo ngi koy gërëm di gërëm ménagères yi ci nekk euh, entraîneurs yi euh, Pambay ñoom ñëpp ñoo ngi leen di gërëm di leen sant euh, di wax benn affaire boo xam ne tey jii moo ñu fi dajale ñun ñëpp. silence s'il vous plaît. fi dajale muy kaawu la dëggee de sunu rak xarit sunu frère. moo ñu fi dajale Kaab moo ñu fi dajale ndax euh, vraiment li daal daal de guerre mun naa daal ku ne cat la nag te cat du wees ndax su daloon keneen ku dul Lac de Guiers ni ñu taxawee noonu lañ koy taxawee ni ñu taxawee noonu lañ koy taxawee kon nag tey jii fii yaakaaroon naa ni suñu wootee du ne kenn yëgu ko ah du ne kenn yëgu ko ñëpp yëg nañ ko ku ñëw nag ku ñëwul sa affaire la yaa xam l'essentiel li ñu war a def ñun def nañ ko ñun dañuy ñaan dimbal di jéggulu ndax tey jii ku nekk at na ngay gisee ak ku nekk na ngay waxee ñun daal ñun dañuy jéggulu tey ñaan ndimbal ndax la dëggeer suñu rakk la suñu xarit la bokk ci làmb am fu mu yóbbu làmb am ñu ko bëgg kon nag su ko nattu dalee lii rek lañ mën a taxaw ñaanu njekk ak trang gis nañ axlu làmb nañ taxawee euh, euh, ñu ci jàpp te bëgguñu tudd seen tur jaar la ko ci père Bekaay ñoo ngi koy gërëm di ko sant Père Bécaye taxawaay bi rafet na ak doomu Modou bay ak Makan promoteur ñoo ngi koy gërëm bu baax di ko sant bu baax a baax a baax ndax euh, comme lii sa waay wax léegi rek bi ñu taxawee ci tribunal bi bi bi bi moom moo njëkk a def effort moom moo njëkk a génne xaalisam te ko ci ñoo ngi woo promoteur yépp ku ko mën a jàppale ci benn affaire nga muy nga tëggal ko làmb tey su doon sunu sago ñun lii ñuy def sax ko def ndax tey mën nañoo wax ne mën nañ ko tëggal làmb ñu génne kase avance su dee ñaari avance bañuñu ba ñetti avance bëgg nañu ñu jàppale ko ci mu génn fa mu nekk loolu moo ñu tax a jóg ku ci mun ta tëggal làmb tamit loo man ci jàppale ko xeebuñu dërëm ñu ñaar dërëm xeebuñu bañ dara ñoo ngi koy commencé ci Abdou Aziz Ndiaye mi ngi ci am lu wax baay ñoo ngi ci kilifa géej way Kor Ndiak euh, famille Pape Bara Gueye itam ñoo ngi leen di gërëm vraiment gis nañ taxawaay bi ak ñoom Masata ñoom ñëpp di woo Mansour Ba tamit di ko woo promoteur la Ibrahima Diop am na woo na ma am na lu mu wax te nee naa ko man fekkee tey dafa am kenn koo xam dafa jóg pour jàppal la de guerre nu mu mënta toll loo koy jox papaam mi ngi fi rakkam mi ngi fi Mamor numéro Mamor la ñuy joxe léegi pour kenn ku ko bëgg a jàppale nga jaarale ko ci numéro Mamor nga woo Mamor wala nga woo papaam ndax loolu rek moo ñu tax a jóg pour ñu jàppale suñu rakk suñu xarit suñu feneen ñëpp nag ñoo woo ñëpp ku ko mën a jàppale ndax am na benn somb na Euh, vingt cinq millions amoon nañu euh, dix millions at un million cinq cent mu war a nekk ñaata loolu foo ko calculer ah ci cinquante neuf millions kon ñaataa ci des cinquante neuf million soo ci génnee vingt cinq ak onze million cinq cent loolu ñaata la ñaata moo ciy des kon ah 14 millions environ 15 millions. 15 millions environ. ok 24 okay. millions. 23 500 moo ci 23 500. 23 millions 500 kon moo ñu dese ñoo ngi ñaar jël nañ ñeenti avocat am na ñeenti avocat silence silence s'il vous plaît. am na ñeenti avocat tey dañuy ñaan ndimbal lu waay mën a jàppalee nga jàppalee ñu ko loolu daal moo fi indi di ñaan a at barke kayda tamit ya. waa numéro Mamor waxal 77 numéro Mamor 659 98 53 mooy numéro mooy rakam bi mbokkal ndey ak bàyyi ku am loo koy jàppalee rek mësi la am na lu mu wax sànq mi ngi doon laaj fu mu ko jaarale pour ko koy jàppale numéro Mamor mi ngi noonu mësi la di wax Arbarka Kayra tam suñu frère la suñu rakk la suñu doom la nekk ci kaso bi tamit di ko ñaan yàlla dimbali ko génne ko fa mu nekk at ñëpp ña fa nekk at mbay mbay mbay mbay mbay warax suñu doom la dëkk Géejawaay nekk mbër tamit may warax ñoo ngi koy ñaanal fa mu nekk yàlla gën ñi nekk si kaso bi yëpp yàlla na kaso yi witt ñun daal loolu la ñuy ñaan ndimbal la ñuy ñaan suñu mën a jàppale suñu rakk suñu xarit muy Lac de Guiers yàlla dimbali ko génne ko fa mu nekk bañu ñu dërëm bañu ñu ñaar dërëm lu ko waaye mën a dimbalee soo ko mënta dimbalee ci promoteur euh, yu xaalis ñu tëggal ko làmb Ablaye Diop xaas tam ñoo ngi koy gërëm gis nañ taxawaay bi boobu ba léegi tam ak ñi jàpp ñëpp ak ci euh, nu mu tudd Euh, kii nekk euh, nu mu tudd euh, Lamine Samba ah ñoom ñëpp vraiment kenn lekkul kenn naan ñëpp ñoom ci taxaw ak ñoom Bekkaay ñoom Modou Mbaye ma Dia ñi ci jàpp ñëpp ak ñu nga xam ni bëgguñu ko tudd seen tur ndax mënoo lim ñëpp ah ndax boobalee ku ne ku doxul ku waxul ci kaw yaa ngi wax suuf di ko jàppale kon nag ñoo ngi gërëm ñëpp di ñaan promoteurs yi daal yi nekk ci làmb ji yëpp ku ko mën a jàppale nga tëggal ko làmb ñu moo lii nga joxe avance ñun d'accord nañ bañuñu benn adversaire ku ko mën a tëggal làmb nag loo ñu mën a jàppalee nga dimbal ñu ci nga dimbal ci ngir yàlla ko suuli jërëjëf ñoo ngi ñaan autorité yëpp jërëjëf bàyyiwunu kenn ngeen dimbal ngir yàlla tax lool loolu donc booy wax ci du la jërëjëf voilà ñoo ngi gërëm ñëpp am na ñu ma woo tam ñoo ngi ñëw ah, kii ñëw na léegi nu mu tudd ama neex ama neex gis nañ ko fi léegi tam ñoo ngi koy gërëm di ko sant mbër yi fi teew yëpp ñoo leen gërëm di leen sant ñi bëggoon a ñëw te ñëwuñu gërëm nañ leen sant leen la ku ko yëg nag te ñëwoo nag yaa xam sa affaire la ndax natt du wees ah tàcc leen ko baax tàcc leen ko jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf